ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت السلام عليكم بوكي تهلا ثلاثة ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa dëppook ñaari fan ci weeru novembre ci atum ñaari junni ak ñett ak benn ñaar fukki fan ak juróom benn dafa bokk ci lim yu fàtt yi ci talaata ji rafetul ci dara ñaanu bis bi yow yàlla yàlla na nga ma jéggal yàlla na nga ma yërëm yow yaay ngën ji aji yërëme rabbi xfir warxam wa anta xayru rahimin xadiisu bis bi yonente salallahu alayhi wa sallama nee na kenn ci yéen lekkul mukk ñam bu gën li bàyyi ko ci li mu liggéey ci loxol boppam yonente yàlla daawud alayhi salaam li bàyyi ko ci li mu daan liggéey ci loxol boppam ci la daan lekk xaddis bi buxaari moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa akala ahadun taaman xattu xayran min an yakula min amili yadi wa inna nabiyallahi daawuda alayhi salaam kaana yakulu min amili yadi rawaahu buxaari salaam man